ajaratu daba booy di la voyante bi nga xam ne ñëpp xam ci Sénégal wuy ji na boromam ginnaaw wopp soo xam ne moo ko tëral ci ab diir bu néew la ko dal di yóbbu moom mi di ajaratu ñu bari xam ko ci Sénégal ak ceetam ak xoromam gi nga xam ne amoon na ko bégal gi mu daan bégal doomi aadama yi tax nañu bari daal di koy ràññetle ci réseau social bi foo ko mësaane fekk da ngay reetaan ndax ay waxam ak i kàddoom ak i lay yóbbu ci nga même boo amoon ay jafe-jafe dafay daal di jóge ci yow moom ajaratu daba booy moomu leen moo daal di génn àdduna ni ki démb ci dibéer gi lañu daal di annoncé ak demam ginnaaw wopp su ndaw soo xam ne moo ko jotoon a tëral ab malaise la jot a def bi muy def malaise bi ci lañ ko daal yóbbu ci hôpital waaye fa la mujjee ñàkkee ba kanam ajaratu daba booy bépp kàddu goo xam ne nangu nañ ko muy ay jot a dégg ci doomi aadama yi lenn nga ciy jot a dégg moo di ab nit ku oyof la nit ku baax la nit ku ubbeeku la nit ku yëwén la kuy dimbali ay doomi aadama la kuy sonn ci soxlay doomi aadama yi la dem na sax ba soxlay boppam yitteelu ko nit ñi ñoo ko yitteel ak lépp lu leen di tax a nekk à l'aise moom ajaratu daba booy ku fonkoon yaayam la yaayam jaraloon ko lu nekk ci àdduna daan na dawal ab wotaam ba ci buntu kër yaay ji gaare indil ko ab reeram bu baax te naan ko yaay ndax reer nga bu ne waaw mu ne ko déedéet reeroo jëlal sama reer bi nga reer ci ba suur a suur noonee la daan teralee yaay ji buggul woon dara lu ko metti buggul woon dara lu ko naqare ay mbokkam itam daan jàpp ci seeni tànk daan leen dimbali ci lu bare bare ajaratu daba booy dem na wuyu ji boromam kàddoom yu bari yamu mujjee wax ci ak jamonoom bokkoon na ci Pape Cheikh Diallo a fësal moo tax Sénégal gi yëpp xam ma ba ma jaaree ci Safir FM Pape Cheikh Diallo dama koy wax fu ma taxaw dama koy sant ak di ko gërëm moom ajaratu daba booy ay kàddoom yu mujj daan na faral di wax ni kun bu ko neexee fii léegi-léegi la may daal di jël balaa seen kër ñu teg ma ci jaat tëral ma ci biir bàmmeel ma daal di tëdd moo taxit moom ajaratu daba booy wuy ji na boromam ca waxtu wi nga xamee ne ca la waxtoom jotee maanaam aw digam jot na ci kaw suuf léegi nag dem na mission accomplie noonu la ko gaay yi mën a tudde ab mission jeex na tàkk ci kaw suuf rongañ ki jooy ba sangoo ay rongañam moo bi nga xam ne toll na ci fukki million ak bi ko waa mafia kàcci kàcci dajaleel jëbbal ko ko dañ koo la ubbi muy cosmétique ga muy daanee dooleem jamono ji le gannaaw ba yoon moo di espace beauté bi mu ubbi woon ngir dafa def ay massage ak la ca aju moom Ndeye Khady Ndiaye ay jafe-jafem daal dina koy wuññi leeral na lépp fu mu jaar ba agsi fii ci Ndakaaru Ndiaye ni mu duggee Ndakaaru Ndiaye ni mu liggéeyee ci biir kër ko fay fay mu jàpp ne liggéey boobay arrangé ko ci la génne dem ci benn usine boo xam ne par journée lañ ko daan fay mu liggéey di góorgóorlu di denc lépp lu mu daan liggéey daan na jaayantu ak a def yëf maanaam yaxantu ci lu baree bare moom day xadi njaay ci la sukkandiku ba dajale aw kopparam ba dem defe ji formation boo xam ne moo ko may tey mu mën ubbi benn institut boo xam ne institut de massage et de beauté la maanaam loolee ñu tëddee loxo moom Ndeye Khady Ndiaye ba ñu ko laajee jamono ji nga xam ne ci lañ tëj boobu lépp place bi nga xam ne fa nga daan suturloo moom Ndeye Khady la mu wax moo di metti metti dong ci la nekk ndaxte man dama renouveler sama contrat ci kër googi nga xam ne moom laa jëloon ginnaaw ma renouveler sama contrat na ci laa jékki-jékki jafe-jafe bi daal di am ñaari weer kottu laa fa def ñu génn ma ci kër googule ma bàyyi fa sama contrat ma génn te génnaawale ma ak dara maanaam dërëm yoo xam ne jot naa ko dund man Ndeye Khady Ndiaye beneen bi nga xam ne wax na ko moo di jamono ja muy nekk ci suite boote am na ci benn benn bis aji rabi sarr benn supp boo xam ne gannaaw ba mu ko naanee ci la am ay jafe-jafe ba ñu ko ko njëkk a xool lekk mu ne ko man lekkuma dara mu ne ko xalaatal bu baax a baax bu dee am nga loo lekk nga wax ñu ko ci la ne man benn employé moo yëkkati benn suppam jox ma ma lekk ko supp boobee moo ko yóbbee ab musée ba laaba sii rabi sarr moo ko jox supp bi gannaaw ba mu naanee boobu lépp supp ci la am jafe-jafe ñu opéré ko jëli ji doom yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biiram moom mi nga xam ne moo di ndey xali njaay borom suite beauté lépp la daal di tàllal jamono jëmuy wax loolu le hôpital bu mu dem ñu ne ko jàllal ca ba ca des jafe-jafe yu mu dund ci diggante boobu moo ko choqué moom Ndeye Khady Ndiaye jamono ba tax na ba mu koy wax dafa jékki-jékki ay rongoñam tuuru ci kanamam mu sëgg di jooy ndax na mu dawee yaram ak jaar-jaaram na mu méttee moom Ndeye Khady Ndiaye ma ngay sant ak di gërëm ñi nga xam ne ñoo di awa askanu Kër Massar rawatina Sénégal gi yëpp ndax ñoom ñoo ko indi fii tey mu nekk nii tey bitig boobu mu toog waa Sénégal ñoo ko taxawal ñoom ñoo dajale seeni dërëm ak seeni déem jox ko ne ko taxawalal sa boutique bu la kenn yëpp te itam bu la kenn xoqatal Sénégal gi yëpp xam naa ni ñu ma bëggee yenn saay sax damay bugg dugg ci barabu jëndkaay jënd lu toll ci ñaar fukki ak lu teg te gars yi dañuy jékki-jékki fayal ma ko am na ñoo xam ne dañu may woo par téléphone weer bu jot ñu dugalal ma alal ju bari ñenn ñu ñu ngi bitim réew ñenn ñu ñu ngi fii ci Sénégal kon nag aw mu benn jafe-jafe ndax sénégalais jàppal nañu ma tànk ma dem ci avant première u Bercy bu Ndakaaru Njaay bi Youssou Ndour ma ngay waajal Bercy bu Paris bi tax na ca Grand Théâtre tëgg na fa benn Bercy boo xam ne ñépp a ko daal di teewlu maanaam Bercy bu neex te toj te yëngatu la fa def Boucher Ketchup gis nañ ko ci kaw seen ba muy fecc ak yëngatu di wane boppam ak ndakar wale ba Youssou Ndour ci boppam dafa jékki buuse këcëb bësëg di ko reetaan mbay jëy fay naan acëy buuse këcëb buuse këcëb yëngal na Youssou maa jigéen Ndour yëngal na seenu super étoile yëngal na fi nga xam ne moo di ca grand théâtre buuse këcëb comme d'habitude na mu ko baaxoo defee defewaat na ko ni ni mel maanaam yëngalati na na mu baaxoo yëngale situation wu réew mi ak ni mu yëngatoo jamono ji tax na maam Cerno borom daaru di ci àddu moom it di maam Cerno borom daaru sàkku na ci njiitu réew mi di président Macky Sall ne ko génnal leen réew mi na nga ak dal bépp kilifa goo xam ne yaa ngi fii ci Sénégal moo xam nga yëngu ci mbirum politique mbaa nga yëngu ci mbirum diine na nga génn nga wax ak saw askan na ñëpp génn waxtaan ak askan wi ngir ñu ànd akuk dal nañu fexe ba dal am ci réew mi waaye daal bugguma benn yoon benn jur jàng boo xam ne dafay am fii ci Sénégal donte ni réew mi sax réewum jàmm la nañu góorgóorlu ba jàmm googu la ñu gën koo suuxat moom it di maam Cerno borom daaru delloo waat ju ñaaw kenn du jëmale ay wax ju ñaaw jëmale ko ci institution te président Macky Sall la ab kilifa la kilifa nag dañu koy jox ci dañuy am personnalité bu ñuy wax nañuy ànd ak suñu personnalité bu ñuy wax itam nañuy xool bu baax ak di xalaat laka la génne ci suñuy làmmiñ ndaxte wax dafa garaaw wax lu doy waar la te itam mën na taal am réew ki wax lu rafet jëmee ko ci ki nga xam ne moo di Marème Faye Sall moo di Adamo boss des négri boss des négri nee na Marème Faye Sall nit nag bu demee bay jëlal boppam kàddu ni ma ko gisee ci vidéo bu mujj bi nga xam ne président mu ci doon def benn live moom ak Khaliphone Sall moom di taxaw tàmbalee wax ci ki nga moo di Macky Sall ak ni mu ko jaaxalee jamono ji le maanaam situation wu réew mi ak Macky Sall ni ñu ko yiiwee moom mooy moom moom Marème Faye Sall soxna ci njiitul réew mi dafa mel ni ku am ak jaaxle ci kookee nga xam ne moo di borom këram bi loolee la aadamoo di naan man de ma demee ba gis Marème Faye Sall muy jaaxle ci Macky Sall man nag loolee xamatuma ca dara waaye daal Marème Faye Sall nit ku baax la nit gënu ko nit ku yaatu la nit ku yiw la aadamoo tagg na ko ba noppi itam daal di koy jox daraja ak maqaama ji ko suñu borom jox ak lu réew mi yëngu-yëngu-yëngu ak lu mën a xewal mën a xewi tamit ma dénk leen ñaari baat yi mooy farlu ak foogu li ci des nag saa borom moo ko yore jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm